président Macky Sall ànd marqué confiance. bien sûr mais mais mais mais ce n'est même pas tributaire de leur proximité au président Macky Sall. Ah. mais animé d'une dose de patriotisme parce qu'à l'Assemblée nationale en fait les députés euh, officiellement waruñu am coloration politique bu dul Sénégal. ce ah, sont des députés du peuple. waaw ouais, euh, hmm. abusivement. ils le disent mais en vérité waruñu doon député Macky Sall. député askan wi leen war a doon te ci loolu noonu it euh, li nga xamante ne moom mooy yóbbu le président Diomaye au pouvoir volonté askan bi la donc logique pour logique suivre euh, askan bi nga xamante ne moom moo leen teg assemblée nationale te moo teg le président Diomaye au palais donc même askan bi la kon askan boobu li mu bëgg ak li nga xamante ne mooy njariñ ci askan bi loolu la député yooyu war a def donc kon bu ñu defee leneen rek wala bu ñu jaaree feneen rek dañ koo def parce que seen euh, appartenance politique yaa ngi loolu euh, le PM Ousmane sonk war a jàkkaarloog ñu mel ni ay ba Ngom à l'Assemblée nationale. bon ku xam seen prise de position. Euh, bon seen ah d'alors ah. je sais pas est-ce que euh, seen seen position. parce que euh, tu me parles léegi d'une euh, de Racine qui commence de changer de position. Wow, donc am peut-être que ni euh, ñooñu aussi ils peuvent changer de position mais bon bref euh, bu dee rek ñu ngi ci seen posture ba ñu toogoon ba tey ci yàqam der ci wax lu ñaaw ci wax lu bon c'est parce qu'ils n'ont rien compris. de la volonté populaire de la légitimité populaire te li tax euh, le premier ministre Ousmane Sonko ñëw taxaw foofu noonu. Hmm. est tributaire de la volonté populaire léegi nag. Hmm. Euh, le premier ministre Ousmane Sonko euh, dafay orienté pour wane fan la jëm. waaye ñoom buñ ñu fa taxawee nekk fañ nekkoon ci seen i xasteeg seen i wax ju ñaaw dinañ xam ne nag li woon woon ni na. mooy. mooy ne justice toogatul fii nga am comme seule orientation politique di xas ay nit ak saaga jeex na loolu. ko def ñu woo la. Ah, war a woo kay loxo ko duñ la woo nga mais attention ah y a y de ces choses euh, saa on ne plus permettre ça. Hmm. dañoo dañoo aspirer à un Sénégal nouveau l'hémicycle c'est la deuxième institution de ce pays là. ay nit di fa toog di saaga saagawaatee xaste loolu taxul ñu teg leen fa. ak a xastee ka saaga yoonu réew mi da koy tere nu xam loolu. Hmm. oui c'est ça. léegi nag tey jii nii ñoo nga leen di xaar euh, ñoom Koura euh, Macky xaw ma ña ak. ñibbi na. kan Koura Macky. ah ñibbi na dafa bàyyi assemblée. gis naa ko dernièrement plus députée. quelle démission la ne plus députée. ah ok ñibbi na de. waaw ah, mais euh, xaw moo ñibbi ndax na waxoon na ni bu kilifa gi demee moom it day dem. léegi day démissionner de l'Assemblée nationale après euh, ki om ñëw ki topp ci moom ñëw c'est aussi simple que ça y a pas de souci elle peut démissionner de toute façon elle n'avait rien à euh, à l'Assemblée elle n'a ni les compétences elle n'a pas euh, vraiment la carrure dëgg dëgg dëgg de représenter le peuple foofu noonu mm. waa bi quand même qu'est-ce qu'elle a fait comme euh, action de contrôle du gouvernement Boulaye qu'est-ce qu'elle a fait en tant qu'évaluatrice des politiques publiques Boulaye qu'est-ce qu'elle comme proposition de loi ñett yooyu boo ko ratee mënoo doon député parce que moom mooy objectif u député donc euh, voilà. Mm. elle ne contrôle pas l'action du gouvernement elle n'évalue pas les politiques publiques elle ne propose pas de loi donc toog foofu noonu euh, avec euh, a gën bon ça ne rien quand même. alors qu'on a besoin d'une assemblée de rupture. Hmm. alors ñoom ñi nga xamante ne ña nga woon ca loolu c'est le moment de se réadapter. Ah. ah. s'adapter à la volonté de rupture. s'adapter à la volonté populaire de rompre avec le système ñu jéem a xool ñoom naka la ñuy daboo la ñu jotoon a kii kenn ci ñoom kuy jóg di dem di continuer foofu xamul li xew képp ku ñëw daal jàkkaarloog la premier ministre Ousmane Sonko. Hmm. Euh, ci bu dee da nga bokkoon ca ña doon xaste taxawal jéggalu. Ah. waaw. boo ko fa de boo ko fa xasaatee di nga xam ne léegi nag euh, vraiment c' est le le ministre Ousmane Diagne qui est aux commandes et on à une justice vraiment indépendante qui sanctionne toute violation à la loi pénale toute sans distinction sénégalais yëpp nekk au même pied respecter la loi c'est aussi simple que ça mais taxaw tamit euh, voilà euh, institution bi toog ngay taxaw leen da ngay saagaaka yu kenn xamul après di nga xam ne la woon woon ni la moom yaa ma may ñu dugg ci composition gouvernement bi mujj nañoo am profil yi tudd nga ko sànq Ousmane Diagne xaaroon nga ko ah. oui waaw xaaroon naa ko. oui parce que ñu ngi doon bàyyee xel justice. effectivement ak koy xaar man ku mel ni man. Mm, bokk na ci département yi ma gën a intéressé. muy la justice. parce que li euh, li fi xew dernièrement yëpp c' est tributaire aussi d' une justice d' un système judiciaire bu catastrophique. Hmm. alors. Euh, <laughs> Euh, le procureur avant d'en arriver au ministrat le procureur Ousmane Diagne dans un passé très récent mi ngi woon cour d'appel ñu keccet ko fa yóbbu ko cour suprême lu tax lu tax man jàpp naa ne dafa am plainte bu Ousmane Sonko dugaloon contre des avocats <coughs> moom mu commencé di instruire plainte bi ñu cekket ko fa yóbbu euh, am na ci sax ci biir avocat yooyu ku ma ci porté woon plainte yow mi man waaw yaa ngi fàtte maître Gabi maître Gabi <laughs> maître Gabi maître Gabi di nga wuy ji nag de la porté plainte man xam nga wuy ji woon naa ko. waaw ñaata yoon sax nga demoon. waaw ah, wuy ji woon naa ko moom moo daw moom moo daw. waaw yaakaar naa après ñu rejeté am na benn ku ñeme kàcc waaye ci réseaux sociaux yi ci Facebook ba naan man maa doon daw. maa ma ne ko waaye kon boobu xamoo. <laughs> man maa doon wuti fa convocation bi nekk parce que lan wax duñ ci daw deux yota deux yota alors donc moom Gabi moom moo dawoon mais avant ça le procureur Ousmane Diagne mi ngi doon diligenter la plainte déposée par Ousmane Sonko parce que loolu moom mooy rôle am en tant que euh, parquetier avant euh, cour d'appel euh, yor euh, na parquet de Dakar hmm. parcours zéro faute franchement sincèrement kii bokkul na ci ñi gën a honorer le parquet mais aussi le système judiciaire sénégalais de procureur Ousmane te taxawaayam cour suprême tamit ñëpp gisoon nañ ko. Mm. l'expérience la droiture ak professionnel bi ba sawar ñëpp gis nañ ko au de sa carrière. Kandji nee na ku ko mate la. ku ko mate sëkk sax sëkk wax dëgg yàlla alors donc kon kooku noonu tey jii nii. ci département de la justice c'est un magistrat donc ku un praticien du droit qui maîtrise te objectif bii nii mm. n'oublie pas qu'un ministre il exécute dans le cadre de la politique globale définie par le président de la République ouais. alors que la politique globale définie par le président de la République moom mooy des réformes en profondeur du code pénal et du code de procédure pénale des codes qu'il maîtrise très bien parce que d'agent kat c'est sa routine chaque jour ci loolu lay liggéey alors donc euh, en tant qu'ancien parquetier le le ministre Ousmane Diagne xam na aussi euh, là où hmm. yàgg na noo wax ñu wàññi les pouvoirs du procureur. Ouais. le cordon ombilical bi nga xamante ne moom moo ko lié ak l'exécutif. Mm. qui permet à ce que euh, moom euh, ministre de la justice mën na toog bind procureur. Hmm. ne ko demal jàppal ma jiw. or ce ministre de la république euh, ce ministre euh, de la justice bu njëkk bañ doon xam mooy ku amoon far ci wàllum politique kii farul fenn ci wàllum politique donc amul benn intérêt yi bind kenn naan ko jàppali ma diw hmm. amul sauf sauf sauf s'il s'agit d'une violation de la loi léegi nag euh, lien boobu noonu hmm. la ñuy dindi wàññi pouvoir procureur surtout ci mandat de dépôt parce que le procureur ah est ah. parti au procès pénal procureur dafa far ci procès pénal hmm. ki far mënoo ko jox plus de pouvoir maanaam dafa mel ni ñaari équipe di football nga jox benn équipe bi plus de pouvoir amul sens hmm. alors donc kon il faut que le parquet mu xaw a am équilibre avec la partie civile ouais. avec au procès parce que moom euh, le, le le procureur il parti au procès pénal hmm. alors donc loolu noonu équilibre yooyu noonu c'est ce sont des réformes en profondeur ci code pénal ak code de procédure pénale alors à cela s'ajoute le conseil supérieur de la magistrature qui aussi constitue un cordon ombilical entre